Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce mardi 30 avril 2024 ginnaaw bi nga xamante ni di président de la république jël na benn décision daal di dakkal lépp loo xamante ni maanaam bradage la jëm ci littoral bi nekk ci corniche est ouest bi ginnaaw loolu nag bi sénégalais yi doon xaar ki nga xamante ni surtout gouvernement bi wala porte parole du gouvernement bi daal di joxe li nga xamante ni décision boobu waaye suñu mbetteel mooy ki nga xamante ni mooy Pierre Até euh, Pierre Atepa Goudiaby moo daal di joxe li nga xamante ni mooy nouvelle bi ci émission boobu ñu ko invité woon ci grand jury en tout cas lu mu wax naa ne arrêté luy travail bo xamanteni ni buñ doon def ci corniche ouest bi muy benn grand pas bo xamanteni dañ jëm ci veeru li nga xamanteni moy fin bradage des terres maritimes en tout cas ki nga xamle di Pierre até pas muy benn décision bo xamanteni président Bassirou Diomaye fay mom moko xamle ginnaw nak lolu ñu arrêté lepp luy bradage jëmale ko ci souf yi nga xamanteni ño nek ci corniche bi depuis ay at ci ruufu régime king a nga xamanteni ni Macky Sall ak Abdoulaye Wade ay hôtel ay immeuble ay villa de luxe ñom lañ fay gis ñu fay tabax ci domaine public maritime bu Dakar wa lolu poussé won ki nga xamanteni moy Ousmane Sonko ko mettre en garde ki nga xamanteni moy promoteur yi mais doon tay lo xamanteni tay meun nañ ko raser ginnaaw bi nga xamanteni ni ben grand pas bi ñu franchir jëmele ko ci décision bi nga xamanteni le président de la République Bassirou Diomaye Faye dal dina freiner lepp luy liggéey en attendant que ñuy am ay suite yo xamanteni ni dañ koy joxe jëmele ko ci bradage bi té amul ben tour bo xamanteni meun na ci pousser ki di Pierre até pas di architecte environnementaliste exprimé na dal li di réjouissance am jëmele ko ci première pas bi nga xamanteni ay xaritam ay mbokam ay doomu ndayam di Ousmane Sonko Bassirou Diomay Fay daal di nañ koy jël ginnaw loolu nak suwem la won mais tay est-ce que décision bi c'était pas pour récompenser Pierre Goudiaby Atepa ginnaaw bokkoon na ay intermédiaire ci médiation bi nga xamanteni mi ngi doon dox ci président de la République ak kii Ousmane Sonko Bassirou Diomay Fay bi ñu nekkee prison ginnaw loi d'amnistie bobu génne leen est-ce que du li nga xamanteni tay tey Pierre Goudiaby Atepa dañ ko fay li nga xamanteni manam moy param ci gâteau bi ginnaw liggéey bu mu doon def muy révélation yo xamanteni ni Pierre Goudiaby Atepa ci bopam moko def muy président mom ci bopam mo def ben fee bo xamanteni tay arrêter arrêté plus luy construction jëmale ko ci littoral bi sénégalais mbettel bi ci am lutax pierre Pierre até pas di annoncer nouvelle bobu alors que porte-parole gouvernement Moustapha Sarré moko waron def en tout cas mu doon ben ci ay doléances soo xamante population bi ak activistes en particulier ñi nga xamanteni moy tabax presque ay sauvagement ci ou littoral bi daal dinañuy privé ay sénégalais l'idée di plage ak loisir Pierre até pas bok ci ñen ñoo xamanteni ay ferveur fervent défenseur ou littoral bi lañ def nañu révélation ginnaw Sonko mom ci bopam promettre une fois n'y est au pouvoir dinañu raser lepp lo xamanteni ay construction la ci corniche ouest bi en tout cas su dee boo ko ko dinañ jàppale dal bi respecté nako mais appel d'offre bi monde respecté wu ko en tout cas les lu ñu mën raser doon na li clair mais li ci mën sukkandiku moy le président de la république Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement ñom ñoo arrêté lepp luy tabax ce xamanteni ni na jëm ci walu littoral bi depuis que nga xamanteni ni bërki di aljuma mom dal da fa jure personnellement en tout cas l'architecte Pierre Goudiaby Atepa pas ko xamle ci omission point de vue vie boo ko xamante ni amoon na foofu ci RTS ginnaaw loolu daal la ñu xamal daal lépp loo xamante arrêté nañ ko sëf lii nga xamante ne mooy liggéeyu aménagement yi ñu entamé te état du Sénégal moom ko ak lii di public bi mooy ay différents yoo xamante ni dina ci ajouté wu bu baax baax. Thank you.